l'actu sur King FM. Katingai. Bonjour et bienvenue à tous. Le leader de Pastif faisait face à la presse hier après-midi pour revenir sur l'affaire euh, du scandale Team. Ousmane Sonko s'est prononcé sur euh, l'appel à témoins du procureur de la République en jugeant l'attitude de ce dernier comme étant ridicule et rajoute que le président Macky Sall aurait dû être démis de ses fonctions et jugé pour haute trahison. Après la sortie du ministre conseiller en communication de la présidence sur l'affaire Team, Ali oussal dément et campe sur sa position dans un communiqué signé par son avocat, maître Mohamedou Mustafa Dia, il a démenti les propos de El Haji Kamidou euh, Kassi qui a révélé que le petit frère du président avait reçu des 250 000 dollars pour une consultance en agriculture. Dans ce document, Ali Oussal réitère ses éclairages lors de sa conférence de presse du 4 juin dernier. International, au moins 65 personnes, dont 15 civils, ont été tuées à Idlebeb dans des combats au sol ou des frappes aériennes syriennes et russes. Perte portent à 120 le nombre de morts dans cette région depuis mardi. C'est aujourd'hui vendredi 21 juin 2019 que débute la Coupe d'Afrique des Nations. Hier soir, les Lions de la Teranga se sont entraînés au terrain annexe du stade, se préparant ainsi pour leur premier match qui les oppose à la Tanzanie. Et c'est ce qui met un terme à ce flash version française. Tout de suite, la version Wolof. yéen de King FM 99.4 mbokk yi dalee nag jàmm ci seen tënkum xibaar ñu tàmbali ko rek ak leader bu Pastef ni ki démb rek da doon a taskatu xibaar yi ngir daal di dellu si waat ci mbirum petro ba tax na moom Ousmane Sonko mu daal di xamle rek ni procureur bile li muy woote rek ci ay appel à témoin nag jamono jile dafa daal di jàpp ne loolee teg wut benn yoon da ko daal di war a dakkal boole ci rek di xamle ni kii di njiital réew mi Macky Sall doon ko war a jëlee rek ca bopp nguur gi li ko waral rek moom moo di dafa daal di def lii di haute trahison bi nga xamante ministre conseiller en communication de la présidence Djemrek euh, rek ci génnam nga xamante ne defee na ko la ci euh, TV Monde di waxtaanee mbirum euh, Petrotim Aliou Sall nak daal dinay xamlé ne lolé mu wax amut ben yoon ci app communiqué go avocat wum bi lé di maître Mohamedou Mustapha Dia moo ko daal di signé Aliou Sall nak mi nga xamlé ni cadeau yi di yi nga xamante ki di El Hadji Amidou Kassé nak daal dina koy génne loolee amut benn rek ci fàttali mom rek El Hadji mu ngi daal di ni ki di Aliou Sall nekk rek ci njiita réew mi nag jot naa jot lu toll ak 250 000 dollars jëm ci ab consultance euh, ci wàllum agriculture ci document bi rek Aliou Sall nag mi ngi daal di taxawaat rek ci li nga xamante ne moom mooy kàddu yëmu yëkkati woon ca conférence de presse am ba amoon ni ki ñeenti fan ci weeru juin bi ñu weesu ca bitim réew euh, lu ëpp juróom benn fukk ak juróomi doomi aadama ñoo ñàkk seenub bakkan ci ab euh, combat au sol bu amoon rek ci diggante Syrie ak waa tax na rek fi mu nekk nii seenub limub doom yu aadama yu faatu rek daal dinay ëpp lu tolloog téeméer rek ñaar fukk ca dëkk boobu li nga xamante ni talaata ak léegi ay jëye rek ma nga fay daal di am ci wàllum tàggat yaram la ñuy tëjee tënkum xibaar yi ni ki tey ji rek la lii di Coupe d'Afrique des Nations di tàmbali démb ci ngoon rek gis nañ sunu gaynde yi ñu entraîné foofu la ca terrain annexe bu stade ba di rek waajal seen premier match war a dox seen diggante ak waa Tanzanie ni ki jibeer mbokk yi nag lii la leen indiloon na seen tënkum xibaar ñu bàyyi rek ngeen wéyal ak équipe matinale bu